mustaq ngir bii foo jëm ñu ànd ba lay sa may lar sa der bi mu ne ko dellul ma si sa dellul ti ngeen nag mu daar ma naan dellul ti ngeen nag mu daar ma naan te xam ne man Serigne ma ñëw bisu rahman latif ala shay'an bi xel ismi fa ismi shartun fa xabul jaan ma si sa nango xalaa xalaa ni man Serigne Touba kuy topp samay ndigal di bàyyi li may tere laa sore sore yaa ngi man doo too sore koo xam ne boo topp ndigal boo bàyyi tere laa ma jegeñ jegeñ jegeñ yaay ko sore nit ci sa bopp ak na ci man ak na fi sa man ku ne ci boppam bàyyi ah, ah, ah, sa bopp di yaaru oxraa nga fareeg sa yëpp benn nga def lu baax bu dem diwaani wala nga def lu bon bu dem diwaani ah asma ala ah na diwaani jaay xool xalqi fulan naani ku ne ci man mu siise xoolal xam aani ku ne ci man mu ne ci man laa am tuwal ko adduna ko laaxira fa defar ko ku ne fi ngir koop meeg saa yim si ma jox ko yooyu sama baat ndel addinaa ak alaaxira far defar ko sàmm ko ramm ko ba xëy jëfal ko jubbal ko ñaar naa ko mu far ko ku ne fu man ngir comme nag saa yi si ma jox ko yow ah sa baat ngel si yow laat man ko iblu yow ma cal ko ah yow laat man ko an yuribu yow ma cal ko an lay def ma si suñu pesex ci li Cheikh Monsieur Sundanga Demba Xabaan bay fa bo alaagaan amul ci mbay ma jël benn dërëm mu xam ne yàlla ku dogal feet ma fu jëm mu yóbbu gannaar bit ko Sëriñ Tuuba mu doy ko waar luy laala maay laala maay sunu musaana laala maay muy Cheikh Bamba Cheikh Ibrahima yéen ñëpp ñu bis ba sëñ Asan Caam moo ko yóbbu Gànnaar tudd naa Seex Faal may ma Seex Bàmba naa aar mu di kaay leen siyaare ndax junni bi borom bi lay siyaare borom borom bi mu ma waay yéene ma ful ko junni neel ma sonn lu Sëriñ foon wala ko wax mooy fay di fay tanaa ñu xamatuloo ko ah ah ah ah ciy fekk te nga xam ne bu ëpp waara fekk ba nga xamal ne mooy borom di saaw dangay daal fu mën a saaw toog la seex seex bàmba yoon na waaw kaa seex bàmba yoon na waaw fii ba maa fi tànn mbooloo seex maa di gay kollu toog la seex bàmba yoon na waaw seex ma faal di ko ànd ak mbooloo seex maa di gay kollu li ma njaay roqi ahmadu lo ah, ah, ah, ma sàmm njaay ngaqi mook sunu maam Ceerno Ibra Faati mook sunu maam mook sunu maam mook sunu maam Ceerno Ibra Faati la Bamba waawandoo yaa Ibrahima bon leen toppandoo dinaa la wax wala li sëriñ ba sant ban dina gànnaar ku nekk sant na ngeen ma dégluwaat te ubbi xol dina ci Cheikh Bamba xalam ci xëy wax leen xibaari gannaar te gàdd seex sidiya sëpti muxtaar ak la fa xew te àgge fulu sa daani leen teel bambam bi daan ak la xew te buule anda nan baaxaan te dara jëy xër wara dinaan barala السماح أبي الخاسي أبي الدائم شفاح الناس سماح fasaare na ko ay sama sëriñ yàlla fasaare na ko ba deret di seexee ñaa fal nan leen yéen wuru jébbulu ñaa alku bu réere watuwaat du nappalu waa nag wal xoobu wala daanu soo mënul bay daanu soo daanu la mel ni amir wala xaalu koral walaalu suuli wala yaalu bambaa wax booba cuurum ganaar bala ma ci ngay si bul su daan fépp lay jaar wala taxoon mooy daatak rabbana laa naa la di jàpp naan banaa ruyëpp ruyëpp ruyëpp ruyëpp ruyëpp ruyëpp man naa leen fi saayir bu baatin moom naa leen am na ci yoo xam ne naa leen bàkku am na ci ruu yoo xam ne dinaa leen sëlbu am na yoo xam ne dinaa leen yëlbu am na ci ruu yoo xam ne dinaa leen yëlbu bu fi ma jëm ma boole leen ak rabbu am na ci ñoo xam ne dinaa leen folli rek leen ba saani sët sax gàlle cooye fay am na fay nan nag ba mu rek grappam ya ni pël mu daan def ba dooral yalwaan dem ci àddaan jam ñaan di xaaraan kër yi mu amoon mu jaay ko suñu gaan ak ñaari góor yëpp la xaan ridwaana bi rek mbag lu góor boowaan ala aji seexanta daa na ko war subaa ngoon ci wooya fan ñu naan ba dikk jéggulu ci seex bamba fekk seex sa dulu ma leen fi tuut ci buure bamba jàpp daanu ma suñu yow ba ñëpp ñëw di tuut du aaru ma dikk lim mbaaxaan ma dikk lim mbaaxaan ma dikk lim mbaaxaan ma moomoon yoon wa bamba yokk seex ibra faalum yoon wa ba jëkk lim mbaaxaan mbaaxaan ma moomoon yoon wa Bamba ko jox si xira faal mi yoon wa Bamba ko jox si xira faal mi yoon wa Bamba ko jox si xira faal mi yoon wa mbaaxaan ndar la fekk Serigne Touba daal di jooy ba xaaju mbaaxaan ndar la fekk Serigne Touba daal di jooy ba xaaju tuubal ko raamal koy moroox di rëccu si Bamba naan ko mbaaxaan keroog fa néegi Jurbel waxoon mbaaxaan waxoon naa la fa néegi njaareem man Sëriñ Tuuba ku ma nerool bu ëllëgee dañuy juboo nga naan ma duma juboo yow ci dunya ma duma yi la muuñ kon tey jii mu ne juboo yow tey fii fi ndar mbaaxaan نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن سير بمنانكم باخان وخدنا على وخدنا على وخدنا على وخدنا على باخان وخلوا يا خان وخلوا وخلوا يا خان وخلوا وخلوا يا خان وخلنا على كل جربل من سنين توباكم مرال بقول لك يا دنيا الجبو nga naan ma duma jubóog yow ci dunya ma duma la mooy ngir fan yow te yii ni ma jubóog yow tey fii fi ndar mbaaxaan naan ko yow Serigne Touba xanaa dangaa xamal ni firaw na ba tax mu lab ci baaru xasoom dafa tuuba yi Musaa Karim tey Mbàkke tuubal naa la jéggalu naa la raamal naa la rëccu naa ko Sëñ Bamba ni ko mbaaxaan mbaaxaan mbaaxaan jéggal naa la Abdul Xafoor la ko Sëriñ ba tuddee ngir xam ne mooy jéggal ku lebbi fu ab ñu lay xaar ma defoon rakam ja dellu ko jox Cheikh Ibra Fall jëwriñ ja lu mal ma sekk julli ak moori sa Jóob ñooy doomi la jaay di koon daar te tuub Sëriñ Masamba Mbàkke Sëriñ Masamba Mbàkke sëriñ Masamba Mbàkke ah, ah. sëriñ Masamba Mbàkke moo na seen wóoya jébbal ko Seex Bamba ñu foro xëy wuula si xibra joob faal sa doomu la boor Cheikh Modou Mbàkke yër ko mooy góor fab la faal ak penda faal ak dencin jëbbalaan si xibaati garmu ya bari fab saas mboob fab njaay fab sunu njaay jëbbal ko amdul Mustafa xarxaraja si xab da baasak Amar ñaan maam Cerno Faati Mbàkke am na lu mu ñaan ma ko du salak may sa mbay ma samba saagoo na ñoom xam na Seex Bamba bar saal mag bar jeej bar jaago bar ngay xam na mu si sa maam balay ngay ñal bursu bur kumanda fen barma jurbel jur bel jeblo ci cheikh bam mbar ma limal ma bur siin ko fen barma jurbel jur bel jeblo ci cheikh bam mbar ma cheikh samba tukulor ka la sama serigne yoni mu jox ko naaru goor weex way sanni fooy fay fooy fay wala ma ci nan ko malum alburi mum salaw joxoo an bamb léppam alaaji seex anta defal fa léppam neel ñu xam ko waare moo dikkoon fa sëriñ bi nan bàyyi naa adduna tey laay bamba si bamba naan ko ñu xam waare yaa wàcc adduna ngir bonam gi am adduna la wàcc ngir sa bon gi ñu ko yaa xam lépp moo tax maa ngi jox naa la saaru ngi saa ngi Cheikh Ba mu naan ko joxe mboore yaa ngi maa ngi bur yàlla aa ngi gannaaw xam nga li mooy buur nangu naa njëmbal gi dama te topp ndigal buur yàlla te daw la muy tere mu xam ni mbër la mu dellu doonu lëf ci wóoru jébbalu kon tey nga xam ni Cheikh Bamba rek moo asebulu nen bu tosaw buur a pël bu woon fa Kawlax jëmbal na Serigne Bachir ruuga may lox Serigne Bachir wax na ruuy Saalum jëmbal Serigne Touba nee leen ko maalum Serigne Bachir fi ma denc dooraam yaa deman Cheikh Bamba yaa bari ndam Serigne Bachir bas Mbàkke Faatuma damaam nas na ruuy Saalum jëmbal Serigne Touba nee leen ko maalum wax na tuuti fóore ak ay xaadi yi àndoon ak mbaaxaan ci waa mooy sëriñ nasaraan ya wuru doon wax far baaxe bu mu ñëwee Sëriñ Bàmba daal koy dénk mu daal di jébbalu mu daal koy dànk yaa xaam bii kun fi diwi baalaata xëy yi faraata kun fi diwi baalu sër Bamba ko wax xaj mu daal di mu boole ko ak Cheikh Modou li ma nappalu yaa tax ba Cheikh Bamba yowal ko ngaabu ñaa suñu kër ga ñoom foofu Cheikh Mbacke Cheikh Naye la ko Bamba sàkkal Cheikh Amsa to ak Cheikh Ibra laa di màggal Cheikh Ibra dañ ci doori Bamba moo def xalifa du Serigne Massamba yàlla nga doxu gudd fan ba àggale suñu ñebet ci dara amina nee leen amina tubara jay mbem mbàkke moom yor noona soo leere jolli na gëndoo ba leeral bëgg la ngaa bu jëndulaa ko yor ba pagal na xaaj du naar ko gore moo yoroon tuwaawoon booba waaye fóore la daa bindoo leen na saani bu mu ñëwee ful ceeg mbaaxaan Cheikh Bamba bu ko waxtee xajaban te duñ ko gërëmal xaadi mataar soob xaadi xaadi mataar soob la bamba soppoon moo jëkk a jébbalu ca maas ga mu nekkoon seex bamba mos na waaye yow loo atte tey ardi bil araadi mu ne ko attanaani yaamat ilimaanu fii saayirin wa baatinin fii zaman ngir ku dul yow. ngir ku dul yow su jiite woon say maam ba tey. mu sabal ko aw jamaj wala mu juum ndax Cheikh Mbacke Bousso Moustapha waxtu suñu borom te Cheikh Ibra Fall mii mosu julli wenn waxtu suñu borom yow yaa mën a jiite ay gaa yi bokkul fu nu aw yaa raw ñu teew ak ñi wéy ak ñi bëgg a ñëw Cheikh Bamba ni ko yow mii nag yaa mat xaaji fekk ji anta xaaji dama laa tey anta xaaji parce que Cheikh Bamba may na ko. ndax yoo xam ne kànga mi daal ko koy kay boo fay kay boo sama ma nag caaya ñëw di tuub wata ya ak naa ba bisu alarba ci aawaa ba boo bee dama sàmba yaay dambaru suudu seddax ga haddaf lu yakar ɓen yala gannaar badril jirjendar musɓen balaya jalluuri kajar amni tiyyot fofan man marati fekla kan wite xay musko xbar ɗaɗemo way waagul gannaaw mu di ci bëgg a xam soir gannaaw mu dugal noppam mu dellu ko waar léegi ñu xam sama sëriñ mooy ndaanaan daanina bis daanina soo daa ma ngay daan bi daan njàccaar la moo xam ma aw maar ma ma aw saatal mu soqi ma ngir ma julaan mu suufi ngir ma daf ko gumboom ya dund ko jiite yoon di man njaccaar léegi ñoo koy daanu ci kàmb ak yi njaccaar ah, ah, leen daanoon yoon wa nee na menes ku deeti jiite njël wa dugg na ku yeb xaay tuuda sa xaay di dikk ndar duggoon te ndar fanaan laaj xaay gont na ndar balay sa gont na ndar bàyyi suñu saal oh, oh, oh, gont na ndar

lampe électrique fa daal di tàkk ak lampe gaz saak foto foor yañ sàkk moo ne dundoo guddi ko mel ni njolloor fo xuyéeru guddi badar mbaa ina yaar Cheikh Bamba gàdd ak naar ay sama sëriñ Sëriñ Tuubaa لم ترخ من أسبوعها ولتبعنا لا يا يبي bàyyi na taa bu ci tuub see bamb ibn ko na yëpp ñu tuub wala sun tuwa naa defar suñu biir baatinan ba wa hunde la bi Musa ànd ak suñu tuba te taggu Musa sa dem gi tax na ñëpp jooy ay sëriñ Saaliw sa dem gi sa dem gi sa dem gi balay si tax na ñëpp ay sa dem gi tax na ñëpp jooy sa dem na ñëpp jooy nawet di sax dootul tooy ay sama sëriñ demam gi tax na ñëpp jooy nawet di sax nawet di sax loo gën a di sax dootul tooy léeg-léeg mu war ba taalibaay suñu géej xarala bi ay sëriñ Saaliw xam na ni yaanu daa tawal daanu bayal daanu ñoral daanu rañal daanu dëggal feesal nga ca bi ay sëriñ Saaliw suur bi yow daa sanal jigéen ñi yaa daa amal te ñëpp yam kenn amatul moo tax naatal xarala bi ñu yaa ngi xàcce dafa seer ñi dafa dakk ngir bañ a lor ñu daw balaw ba ni ma fuuf moo tax nga naa balal balal mboolem përëg naa ak waraf kenn du si ko amee yëf moo tax nga naa ah ah ah taw moo tax nga naa ah ah ah taw moo tax nga naa ah ah ah taw xar na bu ma ma Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba mam di waaye mbir yi ñoo ma woo na talatal te bu ma woo sëriñ ñooy woo xarnu bi te yow wax ba ne tala ngir yaa ma def entrepreneur waa fii xam-xam ñu rëpp su ma ko joxaat nit ñi te bu ma tam xam ci ñaan ñu ma bon te it ko ñaan ñun ñëpp la ko ñaan ñu bëgg a dekkal xarnu bi jooy parental la mu jooy jooy parental la mu jooy suñu musaa ñaan jooy parental la jooy wala suñu musaa bu leen ne ooy ku ñu fal bu ndi fii ku dellu naatal xarnu bi dama jaay xiif a xiif lu mu togg bari duñu ko fuuf Cheikh Bamba neel dund mu ñëw boobu naatal xol bi xiif tax na yenn mag ñi yooy xiif tax na mën na tool yi booy suñ bi daa ah, soo xam ne moom xam nga daa joxe ngi laaj ñu jàpp seeni sas di xaaj kenn dootu dem fenn ba aaj suñ bi daa ah, soo xam ne bi ñii saane sag sag ku na ñii seeni gaay dagg ku na ñii seeni ngëm rëkk ku na ñii seeni ngëm rëkk ku na du ñàkk diitu xar na bi at mu ànd ndax mu tuna daa mooy gën a far dellu gannaaw barab yaay sax gannaaw ay ndaka soxna bi ñu ñu wooy naa ko tarax yàllaay amoo ku weer farax garab bu daana xodarax bambaay ndaa njaamal xarna bi garab bu mag bu nee jilim garab yi ndaw yi duy jilim nañan na say mbir ma alam wakadal waa xarna bi allah akbar demoon na maa mën a safaan xéewal yi daf daa bala ngaam ci ndabi mbooleem xarna bi li beeg si peeg fex faraan lan daa duwaa muy wala ngaam li xel ko fi naan wataya kon nag xarala bi ab sax fooy laal na si tuub nañ lan daa defi koom te lu neexul woon balaa am jur bala wuute xarala bi. ñun suub nañ la jàlle nu waaye mbàkk bul dem bàyyi nu ñun suub nañ la jàlle nu ñun suub nañ la jàlle nu waaye mbàkk bul dem bàyyi nu yowmal xiyaam yóbbaale nu te bu mboola ab xarala bi suñ tuba kenn dootu dox kam li nga dox kenn dootu wax kam li nga wax kenn dootu jox kam li nga jox ba lool nga xam ne bi sama sëriñ gabam nga xam ne ni mbërëm galwaaña ay galwaaña sëriñ saane sama xam ne ni mbërëm lambar na seer ne mbërëm sëriñ si taalif na moo luy feesi taax te xalimaam du juum du jaax te am xalam du gàtt naax rek lëf ci xarnu bi su ma sëriñ day duus dong yi suy ilaa ñoo ci dënam mooy géej gu rédwaan di gënam te mos la fer ci xarnu bi bambaa di géej gu tabbi géej fekk fa géej gu ko ngii ci leeree ba ni gii ba mu sutu ay xarnu bi lu baax baax ba daal lu baax lu baax lu baax sëriñ Saaliw moo lees baax ak sama sëriñ Baay moo lees baax baax nga yem fukki ba waa gaay xam nga bi Cheikh Bamba waaju ko soppi al baax waaju ko weddi du ci baax waaju ko gërëm ñu gën di baax waa yaa ko na xana bi waaye mbi ngir gaari ci laax duutu lu ay sagar di daax loxoom daal ci baax kuréel seetal xarnu bi kuréel bi i dama la gan Cheikh Issa jëndee mbër moo ma nu gan Cheikh Issa jëndee mbër moo ma nu gan Cheikh Issa jëndee mbër moo ma nu gan waaram na wutina fogel damba ko ñaati farna bi mini dam gëna tuat xol yu ko ata ko ba xalima ka daay fon wutina mola am xol bi sun tuba sun tuba se bam yar marbam fekko ci aduna maram te ñom borom te ñom maram te ñom xarna bi sun tuba yaa di am lu dar lamur de xin xin xin xin xin Lieutenant Couture Sinsi Sibling Sambor xin na Atol Bukunin na Lepeng na Lepeng xin dia? Siapa dia? Eh, dia kuat Ngafun ko, buhay ko kay Yay, nandari na ang sino kong Yay, lamp bu yoon ci xar bi amul du faal seer njaay bu leen bi ca ngaay pour di faal maa seex moo du faal faal Sëriñ Tuuba Sëriñ Tuuba Seex Bamba billaahi yaa mat li nga doon noo seddu te di kër bu doon dam la gul ci ceen mu mbalaan bu xar yaa nu ko مقامه يا نكون دفل كرامه يا نكون رسوان واخرج الكرب جام الدرب تبوك سري مركدك مكجام نفجك يا رمضان تخرج من الكواخر الكنيو بدل تحسن الجياخ فلك سرين بي ذهن بشيخ من الواخر نبي راح أكبر سمان بمعنى ما بنا سرطان خيوني بسيارة عن تردم بلام حلمي تقول ما ولا سنت أنا فرش من الباتنا البانا الحمد لله بين عندك سنت باح تتعب موسى شيخ محمد الفلل شيخ شيخ شيخ محمد الفلل موي فاي دي فل تكون ناخ مفل ngay falé صاحب القماح ابو الفدائي ما لم يحوي احد الكل فما رم كوي صاحب الفداء مولى المعلى في عالم جوال البناء شادل بروح شادل نزول النار واسمع ما مش يفلق 兄弟们。 bul shariifun shariifun bul shariifun bul shariifun shariifun tuujibuya alaa fal makka dafa tasaatur tasaakaar di doon koy laaj ku laaj may nga di yow fal xon ni ne ana Muhammad naa muxtaar ma la ko waay yow feex naan fadru yaa ma ñu fi may ma tiraa law laa ko feex fal mbakk xëy na li war wali kon bul war walaatoo mu ngeen may seex naan fadru fadru عزيم شريف فارس فتن مقام مصابرة مقام مصابرة مقام مصابرة يتم ويغسره وردم الخيول باوار بود بيخ بالم كسب شيخ فالمك خيول ورمه كسب شيخ فالمك خيول ورمه وردنا لا يا مرحبا سلسلة يا من أرى فليفخ النور لخ برم برجع بال ملك الجنود والبلاد شمرا مخمرا بالتراج لا يفن من بيدر شريف له فجيت المولى كل الألوة قال قال ميتار nekk ba tàggoo yaa xala yëg ku dugg ay sëriñ biir soo fan mbàkk àggal la taxaw lu naa wax wala sëriñ tuwaa naa defar suñu biir baatam baaw xumala biir Musa ànd ak sëriñ Tuuba te tàgg bu sa suñu jaar bu sooy sa baay suñu jaar bu sooy sa baay sunu jaar bu soo ah, ah, ah, sunu jaar bu soo sa baali mos la julli te jàppul mos la julli te werdul daa xëy tuubal aa war këram buubal na jaay da kandoom muy njëkk jigéenam soxnante njaay mbokkam taala antulu maaram ba mbon yu daaraatal seen jëneer moo niital سوف أرسل توبا بجفل إلار توبا بسوء بسوء نقل نكلم إلى الخنجة جماري قوة بسرنا عن خنجة ورجل باجي بكان من النار جبان جوتي لم فجت النار تمسلوني من قرى توبا أجده ak sunu sunu jaar bu sooy sunu jaar bu sooy mosul jullit a jàppul mosul jullit a yor bu du xëy si ñoom tuubal ah di war këram tuubal nañ yooyu ba kandoom ñu njëkk jigéenam soxna Anta Njaay ndokkum tool antu maaram soxna Anta Njaay soxna Anta Njaay ndokkum tool ndokkum tool antu maaram Cheikh Anta Ndiaye ah, ah, ah, Soxna Anta Ndiaye mbokkum to antu maaram Maam Anta Ndiaye ñett nga jul yaaram du imaam galu leen ci maaram suma jaar mi suma hoon du sangaal suma jaar mi suma jaar mi war naa tax ku jigéen nangul suriñam suma jaar mi war naa tax ku jigéen nangu suñu ñam moo mi nangu lan suñu ñam tey sigel na kër maaram suñu jaarame suñu jaarame yar na soppi ko maaba te xalam ak riitu jar na fecc baaba suñu jaar bu sooy suñu jaar bu sooy sobaali sakk bi mu teelan suñu maam war jaar fanaani caa mooy sakk ti weñi woo na kankax ak sa aay sama njaar bu sa aay bu sa baay sama njaar bu sa aay bu sa baay daa ma maam daal daala maam daal yaa ma maam daal fiir Porokhane na ko duwaw ñu ngi fa mbay ci raxaal ganaar bu fam noonu lépp naan man di bu sa baal yaay ma ambulaan yaay ma ambulaan sam ndox xajul ci xandir mos naa jël aw simiñ taxal gaaram ne ko boobu day bëgg a tàngal kafe dëggal simiñam su guddee mu dem diiwaan mbaa arsh di waxtaan naan ca kaw saan leer nu su weena lanaag rasuulaay di xaareku di xaareku mel ni kii maan mu dam koy ngëneel ndaw mboolool mu teel a ndongolaam tool samaam ndongolaam ndongolaam tool samaam ndongolaam tool samaam ndongolaam tool samaam ndongolaam tool samaam ndongolaam tool samaam taxaw naa yal na suñu tuwaa naa defar suñu biir baatinam aw baax alhamdulillah bi musa ànd ak Serigne Touba te teg Moussa Serigne bi def na ne say gaay ay Serigne bi boole nu ci ñu ci say gaay boole nu ci say gaay boole nu ci say gaay ne Cheikh Assane Ndiaye duñ jënd bay jaay boole nu sëñ jaay ne Seex Asan Njaay bu ba jaay ne gaay Bamba Seex Bamba fu mu dem ba am la mu am ku fa dem danga am la mu am xaw ma na ko am fi tu dem kenn du doo maam jaara la mu tontu fa biro ba fa ndar muur ko yibbu maa yamba gaay a tontu walla ñu ba kenn du doo maam jaara te xëy na ah, yàlla na Sëriñ Tuubaa naa defar suñu biir baatinan aw baana ah, ah. alhamdulilah biir Moussa ah, ànd ak Sëriñ Tuubaa te tàggu Moussa yaaram Seex Ibra Faal ngeen abonné suñu seen YouTube Sàmm Xasida TV ngeen bës kolos bi pour ngeen mën di jot bépp vidéo bu mën a dugal da ngeen ko mën a jot abonné leen ci xasida yi rek ci xasi yi rek man mën a xam sëriñ bi